ziar naa leen. lu waral lii. non bu bees rek ah waaw ma jëndi ko sax waaw lug bu bees rek won gaa yi nii ah nii la yenn saa yi day soppeeku bañ a soppeeku wóorul de xam nga nag dama noppalu lu bari nag vraiment noppalu naa lu bari mais nag noppalu bi yëpp ay liggéey yi ngi ci biir yoo xamante ne dañ koy làq bu soobee yàlla après lañ koy wax. lamb ji bëri na coow lamb ji amul benn coow nit ñëpp corona bi tëj na lamb ji. tëj na football tëj basket tëj lépp noonu la tëjee lamb waaye teewul ay combat ngi taxaw. Balla Gaye Bombardier Modou Lo amaa Baldé Boy Niang Tapha Tine ah ak yeneen booy yi combat yu bari taxaw noonu mais dañuy xaar mbas mi dem ñu daal di taxaw. président CNG bi père luñ ciy wax. luñ ciy wax mooy bàyyi lépp ak ministre bi comme moom mooy fale ñu bàyyi ko mu ku mu tànn ñu jéem a dem ci moom jàppale ko ànd ak moom loolu da leen bëgg. kat noo gisee Medina TV. Medina TV ci kaw ci kan Medina lu musa mus dugg daan ci waaw.